xamee lu ko war moom mën na ñëw ci làmb bëre ba ñibbi te du daanu moom Zé dégg ma wax de bul may loolu Zé bul may loolu di la jàpp ngemb di la sonal ko mayee si baam boo ko mayee mu jàpp da lay sonal da lay jafandu te boo mbootee yaay daanu Zé lu leer laa lay wax Zé bul mayee wet Zé bul mayee loolu Zé waaw waaw kay dafa doole xale bu liggéey la Zé bul may boobi mu lay yegg foofu général Malika Zé may na ko xale bi di ko ronu te loolu arrangé ko Zé ñese yor di jàpp yaa koy gis waroo ko bàyyi mu jàpp mi ngi noonu man koy imposé dooleem waaw mais Zé dafa diis Zé dafa diis ndeysaan Zé en tout digaluma ko mu mbot ci combat digaluma ko si dara ngay wërë ca bëri waaw Zé Zé li nga def wóorul bàyyi sa loxo bi nii mu jàpp la ngemb nii te wóorul jàppal waaw jafandul téye poids lourd da ngay jafandu da ngay bu ñu la doo wadd loolu mooy li nga xamante ni mooy bëre ba waaw Zia nag bu jàppee moom lijjanti wu la da lay day imposé bu ñaar loxo yëpp duggee day bëre. maa la ko wax mi ngi noonu. ordinateur usine technique seen combat bi lu xew. mi bëgg a yàgg nag. moo xew tey ordi ñëwul ordinateur tey ñëwul tey. usine technique yegg na waaji fësal usine technique daan na ko. daan na ko. sa waay Weuz Diambar daan na waaji. Weuz Diambar daan na ko. Weuz bi. Weuz Diambar léegi moom kan la demi final moom booy bi la. quatrième victoire de Weuz Diambar. nu ñu koy Manto. ñoom ñaar ñoo war a daje demi final. Paul Manto. en tout cas Sa mi ngi sonal général Malika. Zé ab xale bu am doole comme yow doo ko may mu jafandu sa ngemb maa la ko wax da bëre li ngay bëre te nga bañ koo bàyyi mu lay jàpp. mi ngi noonu. ordinateur ak usine technique ñu ngi noonu seen combat bi yàgg na Général Malika a ngi noonu ak Sa Thiès borom caaro yi ci biir géew bi noonu mbokk yi Zé borom Malika ak Sathié Sathié soroon na ko fi mu ne. waaw Zé mais Zé nag dafa nekk koo xam mbër moo xam day liggéey day contact moo tax lii ko lii ko jaaxal mais ngemb bi booy bi jàpp rek moo ko sonal bu bu doon loxo bi rëcc na kon Zé da koy daan. mi ngi noonu moom Zé borom Malika. en tout cas Wës jàmbaar li mu waxoon gars yi maa ngi koy bëgg a gëm leen grand place bu leen neex dem leen toog werante ji. Wës jàmbaar a ko waxoon. waaw mi ngi jàpp gars yi di xalab moom Wës jàmbaar mi amagul champion. amagul champion ba léegi. waaw benn mbër dafa daanaka muy petit sellet bu ma xam ci champion yi ci favori yi. der la waaw daanaan la. Sa Thiès ak Général Malika ñoom ñaar ña nga takk na ko. Zé dafa Zé dafa diis. dafa diis. dafa diis Zé loolu bëri Zé Zé bu def loolu bu def loolu. en tout cas Général Malika dafa contact. wallahi Azim dafa liggéey. ña nga noonu ñoom ñaar général bu Malika ak Sa Thiès bu Thiaroye. en tout cas Sa Thiès waxul benn mag bàyyi naa la ak yàlla. Sa waaw day bëre. Zé dafa diis Sa Thiès loolu mënoo ko def Zé dafa diis. Zé en tout cas li muy may boobi nii neexuma dara. loolu noonu mbokk yi woy leen di abonné ci Zarak Vision waaw site bi suñu site la site bu mag baa ngi noonu mbokk yi ndeysaan abonné leen te ngeen bés fres notification bi loolu da ciy neex en tout cas ordinateur ak bureau ak usine technique combat bi neexuma combat baa ngi bëgg a yàgg Caaka Faye dafa mel ni dafa abandonné lamb ji ndax Caaka Faye waaw benn siir laa doon gis sànq si moom Dan na ko Général Malika dan na ko Malika dan na ko toog ci kawam ba xeex du am Seydou li nga def tegoo ko fenn waroo daan mbër mi ci kawam ndaanaan nga champion nga Général Malika dan na Sa Thiès bu Ngangune wala bu Thiaroy nga noonu moom Général Malika quatrième victoire Général Malika ci compétition bi dafa leer yéegi na final moom général lim indi nii yombul si poids lourd bi samp wallahi nga di bëre bëre bu rëy bii kon da lay war ni la làqatu woon nga di liggéey xale yaa ngi koy tàcc général Malika en tout cas en tout cas la général li simple da ko